Assalamualaikum warahmatullah taala wabarakatuh. barakaatuhu mbokki abonné yi tay ma ngi ñew inshallah allah yoon di leen indil secret bu am solo lol mu jëm ci ñi nga xamne dañu bëgg am kër am seen këru bop ndax bo xolé jamono ji ñukay koy dund bari na lol. Euh, nekk di dund jafe-jafe amoo kër amoo foo dëkk wala ngay luwee wala nga nekk tey sa kër mag sa kër rak sa kër nijaay sa kër mbokk ak ku mënti doon te na nga fay dundee métti lool te ñëpp xam neen métit bi nekk ci loolu ah tey nag yàlla dogal ñu xam secret bi ñëw bëgg koo bokk ak yéen partager leen ko képp koo xam ne mu ngi dund jafe-jafe bii rek incha allahu rabbi jëfandikul secret bii lii moom lu am solo lool lool lool la te xam naa ne képp ku ko jëfandikoo te def ko incha allahu rabbi dana ma woo loolu moom leer na ku ko defee ni ma koy waxee nii dina ma woo incha allahu rabbi yàlla dina ko may opportunité buntu wërsëg bi dina ubbeeku yàlla dina ko may wërsëg bu yaatu yaatu dina gën a ubbi buntu wërsëg mi bam mën a am këru boppam ak ay yëfu boppam wa kon nak ñu yegg ci mbir mi ni ngeen koy defé moy ni ma leen wax da ngeen bind kun bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim tasliman ngeen tek ci carré bi carré bi ngeen gis mom ngeen bind gis ngeen yaakaar naa ne leer na dégg ngeen bi ngeen bindé carré bi ba paré nak xam nga ñu ngi def ci digg bi moy béyti xaal non ci digg bi ñu ngi def allah allah bi nak te tëjuma ginnaaw boo defee chiffre boobu ba pare chiffre boobu mooy deux cent cinq bi boo ko defee ba pare tam euh, bind ko en bleu boo leen pare da ngeen di tëj xaa bi mooy xaa bi ngeen di gis da koy tëj ba mu fermé wu bu ko defee ngeen yemale ko foofu après da ngeen koy tëj par allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallima tasliman fa yakun ngeen tëj ko si suuf nii bu ko defee nag da ngeen di jël carré bi ak bind bi ngeen bind si kaw ngeen lem ko ba mu baax ngeen denc ko seen poche wala mu ànd ak yenn daal ngeen denc ko dégg ngeen waaye nag li ngeen gis mi may wax nii du ci bokk lii ngeen di bind rek lii allahumma kun bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim tasliman ngeen teg si carré bi bu ngeen paree ngeen tëj ko ngeen jël ngeen jël kayit bu noonu ngeen lem ko ba mu baax ngeen yëpp du ci bokk lii dama ko bind nii rek pour ngeen xam njëriñu secret bi lan la waaye nag njëriñ gi dëgg dëgg dëgg mu ngi muy mu nekk nii ma leen wax mooy chaque prière maanaam waxtu julli bu ne dag moom da ngay julli moom da ngay julli bët bu set juróomi julli yëpp julli bu ne chaque julli bu ne da ngay wér de suratul fatiha 41 fois maanaam alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin da nga koy wirda 41 fois waxtu julli yëpp bu ko defee xam nga cinq prières la maanaam juróomi julli la julli bu ne rek boo sëlmalee rek jàngal lii 41 fatiha waaye nag boo ñëwee ba si guddi gi doo jàng 41 fatiha julli nga géeyee ba pare avant ngay tëdd nga julli ñaari rakka bu jullee ñaari rakk ba pare plus bi ma def nii mooy waral lii nii boo jullee ñaari rakk yi ba pare da ngay wirda astaghfirullah téeméer cent nga wirda salaatul fatihi cent nga wirda suratul fatiha mooy alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmi din ba wala daalin amin nga wirda ko deux cent cinq fois bi ngeen paree ngeen teg ci lii nii ngeen gis muy rabbi anzilni munzalan mu kan wa anta lii munzilina ngeen def ko deux mille deux cent vingt sept fois dégg ngeen deux mille deux cent vingt sept mais nag juróom-ñeent guddi lay doon muy neuf nuits juróom-ñeent guddi ngeen koy def waxtu bi ngeen bindee lii ba pare moom gàdde ngeen ko téye ngeen ko mais lii nag moom ngeen moom ngeen war a saxoo ko def mooy waxtu julli bu jot juróomi julli ngeen wird 41 Faatiha guddi gi boo defee sa julli yëpp bay waaj a tëdd nga def sa ñaari rakka nga wird lii. lii lii lii yaakaar naa ne leer na dégg ngeen juróom-ñeent guddi yi ngeen koy e def inshallah rabbi lii ku ko def comme nga def ko benn weer weer bi nga def ko si juróom-ñeenti guddi beneen weer ba sa topp nga def ko juróom-ñeenti guddi beneen weer ba sa topp nga def ko juróom-ñeenti guddi def leen ko ngeen xol ba si gisu résultat suñ numéro bi ñu ko bàyyi fii ngeen wooñu dañ koy jëfandikoo di ko bokk ay yéen ku nekk rek mënal boppam amal boppam ndax jamono naq dina metti na kon nag ñu bañ a guddal ñu yem fii di leen di ñaan ngeen yokk abonné yi ndaxte abonnement yi ni muy gën a yokkee ngeen di aimé vidéo yi di def seen question ci commentaire yi dañuy gën a sawarloo day tax kes xam-xam bu ñu am rek indi ko bokkoo yéen kon ñu ngi leen di jaajëfal di ñaana ñëpp jàmm ak salaam gudd fan ak wér tawfeex taysiir yàlla def ñu dëgg-dëgg ay jullit incha allah kon nag ñu ngi leen di ziyaara di yem fii ba beneen yoon incha allah.